bëré tagaliko promoteur bi bu sañon tay lamb ji jeex ku nek dem sa yoon mais c'est dommage que ni xew ni mom euh njort na ni lamb ji yàqu mais ndax lamb ndax lamb ak bët ngey xolé tay li lii war na tey tey lii rafet na. wa xam nga ku ñuy jiñ demu doo soccoo yeli li donc nit bul bañ ñu yakal la ci baaru galu xaj mais buñ la ca fekk ngay lek ñepp dañu indexer lamb ni lamb sport bi ah, ay ay nit ñu violent ñoo fa nekk. ñuy wax toujours violence toujours violence donc tay bu ñu ñëwee lu melni am euh deru lamb moy gak encore une fois lañ doon tek ci suñu kaw dañ koy dañ koy mérité donc euh, encore une fois c'est c'est dommage mais dans l'organisation aussi amna ay mbir yi nga xamné waron nañ ko gëna a parce que fi papa jaar euh, ba li am pour man warul won jaar fofu tax fofu fa la batterie batterie cité nekk supporteru cité yi fa la ñu gën

nit ki bu fekkee ni da nga bëgg benn sport nga ci yëngatu say ñoñ di ci yëngatu nga am ci mbër li la war mooy gunge mbër mi ci jàmm parce que jàmm ci la lépp xaj mais encore une fois li gàkkal na deru làmb rafetul li ñuy def aussi c'est c'est vraiment dommage moi j'ai le cœur meurtri j'ai je suis triste pour la lutte et j'ai même envie de laisser tomber la lutte et d'aller faire autre chose parce que tey làmb vraiment li ñu wane rafetul daal xar

en fonction des rapports yi ñu jot ak ñoom li nga xam ne gis nañu ko ñu jël seen ay mesures mais ce qui est sûr et man su doon maa yor Fapal du bëri. xam nga. Siteu deful dara Papa Sow Papa Sow deful dara Siteu donc li ci des mooy kan moo indi problème bi te loolu la ñu war a analyser je pense que mbër yi ci seen biir amuñu problème Siteu ak Papa ay naatangoo la ñu war nañu mën a bëree papa même bu maye chance Siteu parce que moko ko jiitu ci làmb war nako ko may parce que Siteu dafa woné lutax mu wara beure ak Papa so sur le plan purement sportif y a rien à dire ñaari mbeur yi buñu sañon ñom ñaar ñu tëj barrière bi arbitre bi siffle ñom ñaar ñu ñu ñu ñu bëre mais tay li xew vraiment c'est désolant encore une fois et c'est regrettable. est-ce que du signal fort entre Modou Lô ak Ama c'est un signal fort pour tous les grands combats. arène bi ni mu bindo teug fi yenn làmb yi.

I'm getting to get ready.